boco boco yee seen baay ñëw na ah waaw ah waaw mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki Dakar suma doomu ndey Abass Fall léegi nee na élection législative yi nee na waa ji pojo pojo boobu dañ ko dóoru dóoru dóor non ma ne ko déet Abbas da ngay rafetal wax ji rek koo dóor mën na fayu wante koo tumma moom day toog rek te yàlla dañ kaa tumma tumma tumma tumma ba mu xam ne ni lu yàlla santaane mooy dem julli ji kon nag yi la woon fa woon ba rek Nous avons ñu la conférence des leaders Nous sommes responsables. le camarade Khalifa Sall président de la conférence des leaders de Yéry Askan Nous, sommes leaders leaders de ci conférence boobu Nous sommes la grande coalition Yewwi Askan et ak Sénégal Nous ngi leen di jox seen wàccuwaay Nous leen mbokk yi mam mbir bi mooy daf ma def ay ree xam ngeen mbokk yi ku leen sànni xeer ngeen fayu wante ku leen sànni xotti siteen ngeen faxas Macky lu mu def nii dina ay Yewwi Askan Wi liste nationale bi du bokk day fooyee xelam moo tax yamatuñu ak Macky ci est-ce que dañuy bokk ci élection am déet parce que dañuy bokk ci élection wala élection du am da wax bi ay di la di di di raay wax ji di raay wax ji masla ba ñu ñuy jéem a maasaale duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg pesum kanam borom a koy fajal boppam suñu doomu nday Ousmane Sonko yàgg na leen ko wax neen moo na moom lii rek la xam il ne comprend que le rapport de force lii balaa may day ñuy teg seen xawma ay police xawma yan fii la woon fii rek la woon biig rek mars 2021 yéen ak ñun la woon xamante nañu bu baax a baax baax waaw bu baax baax kon nag mbokk yi président Habib Sy wax na ko ma amaat nu ma neneen nu ma koy waxee ci gàttal Macky sàll ak ñu mu àndal lu ñu wax Nous nañu ci seen xalaat bu Sénégal mën na dem coupe du monde FIFA validé équipe Sénégal wante onze titulaire rek 11 partants moy am onze remplaçants yi mën na ban FIFA moy validé équipe fan est-ce que mës coupe d'Afrique CAF taxaw ne équipe mën na soxlawoo ay partant ay remplaçant rek nga soxla da ngay indi 22 joueurs yu mat yu meuna a bokk coupe du monde FIFA validé wala ngay indi 22 joueurs yóbbu coupe d'Afrique mu mat CAF validé Macky Sall nag nee na arrangé wu ko mu neex la dina la arrangé mu naqari la dina la arrangé parce que fofu la ñu toll ak Macky Sall mbokk yi ngeen même ma wax ci wajoju ku mu àndal mooy Antoine ñàkk jom boobu dañu ne wax ji sax duñ ko rafetal Antoine ci bopom il doit partir Antoine il dégage à partir de maintenant on exige la démission et comme il n'est pas capable de démissionner on exige de Macky Sall qu'il amène une personne responsable une personne équitable pour organiser les élections parce qu'Antoine Antoine Antoine Nyakadjom, il est à lui tout seul un symbole vivant de l'instabilité qui peut régner au Sénégal. Nous ne devons pas accepter qu'Antoine Nyakadjom de organiser l'élection ici. Parce que nous sommes que ministre de l'Intérieur. Nous avons encore andal. Nous mettre les formes. C'est la raison pour laquelle, comme Antoine Diom n'est pas ne Nyakadjom, pas pas déranger. Et nous, Nyakadjom, Antoine Nyakadjom, peut pas déranger nous exigeons le départ à partir de maintenant d'Antoine Antoine ñàkk jom ma bëgg a wax ci du politicien na Antoine devait organiser l'élection. comme nous avons créé de problèmes, nous allons te rajouter un autre problème n'avons que deux problèmes et à partir de maintenant nous avons décidé à partir de maintenant que ce problème est un problème qui ci parce que nous comme

dëkk bi Macky Sall moomu ko mbokk yi nag waxoon naa ci élection euh, locale. locales yi waxoon naa leen élection locale, yi mooy premier tour d'élection présidentielle pour 2024 parce que troisième mandat dañ koy Sénégal waa ji nee na troisième mandat est-ce que c'est oui c'est non Nous nee nañu xam que c'est non c'est non nag par force comme c'est non par force deuxième tour bu élection présidentielle bu 2024 mooy nekk législative yi wala dañ ko koy ci ci kees yi wala ñu bàccal ko ci mbedd bi maa ngi leen di leen sant mbokk yi jërë ngeen